day filmé wala day enregistré.
day enregistré donc tey ñu ngi fii ci projet toujours dynamique contemporain bu xaldi tarixa Kountiou ñu am mbégte di ja di dalal soxna Mintou Kounta di am yenn laaj yu sax moom soxna si ñu ngi lay nuyu.
maa ngi leen di fay.
soxna si est-ce que mën nga ñëw wax yow yaay kan.
waaw man de maay soxna Mintou Kounta maa ngi juddoo nag dëkk bu ñuy wax Cariya ak Saragati ca ginnaaw Kawlax waaye maa ngi yaroo Njaasaan ci sama bàjjen Mintou sama magu papa sama baay it mi ngi tudd Cheikh bu Kounta ñu duppee ko baayam Cheikh bu Kounta di baay buum xalif général la woon Njaasaan fii sama yaay mi ngi tudd yàpp sa silibe sama papa mi ngi nelaw 2006
est-ce que mën ngaa ñëwaat tuuti fan nga juddoo ak foo màggee yow.
waaw maa ngi juddoo Saragati ci ginnaaw Kawlax dëkk bu ñuy wax Cariya ak Saragati foofu laa juddoo waaye maa ngi yaroo fii laa màggee Njaasaan waaw bi ma feree soow rek lañ ma indi fii ci sama bàjjen mu yore ma sama papa jox ma ko sama magu papa la dudd Mintu Bu moo ma yar waaw
ndax yow jàng nga école déedéet jànguma école alxuraan laa jàng
alxuraan bi fan nga ko jàngee yow fii Njaasaan
kan moo la ko jàngal bu ñuy wax Baye Birane Diop
alxuraan bi lan la def ci yow yow
waaw alxuraan bi de wax dëgg yàlla def na ci man lu bari ndax def na ci man ma nekk jullit bëgg alxuraan comme ni ko sama papa bëggee woon def na ci man may jullit biir xam li nga xam ne moom laa war a jullee muy samay farata yàlla dimbali na ma ci ba ma xam ko wax dëgg
ñun dañoo dégg ne yow yaa doon gérer ONG Tostan waaw bokkoon naa ci ci ñu ko doon seere wax dëgg fii maa ko fi yore woon est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci projet boobu commencement bi ba njeexital bi waaw commencement bi de dañu doon jàngal fii alphabétisation moom lañu ñoon bi ñu fi ñëwee loolu lañu doon loolu lañu doon jàngal wax dëgg yàlla ñu nekk di set setal man mun naa wax sax ci wàllu set setal bi lañ ma gisee ba jël ma yóbbu ma tostal
Tostan ban année la fi ñëw
waaw est-ce que 2011 su ma juumul daal yaakaar naa 2011 la woon noo def yow bu ñu jël la poste boobu
waaw xam nga man bi mu ñëwee tostan bi mu ñëwee sax jubaluñu woon ci man xale yi ñoo ma ko jëkkoon a xam bi xale yi commencé jàng lu mat ay fan ma dégg ni am na kat benn ONC bu fi ñëw tudd tostan mu ngi jàngal xale yi sama rakk sax moo ma ko wax ku ñuy wax yàpp sa boy sama rakk la bi ma ko waxee ma daal di ne ko kon de dinaa dem seeti ba xam ndax mën naa ci bokk ndax man jàng rek laa bëgg comme jànguma français bi ma demee ma fekk leen ñuy jàng ma ñëw taxaw ci bunt bi ki leen di jàngal ñëw fekk ma foofu wax ma laaj ma ma wax ko sama xalaat ne ko dama bëgg a dugg mun ma kon bu subaa nga ñëw yàlla def ci suba ga ma daal di ñëw bokk commencé jàng mais nag nekk naa nit koo xam ne lu ma xas bëgg ba dugg ci rek dama ci dem ba jeex dama ciy walanteeru dëgg ndax maa ko duggaloon sama bopp
yan ñoo nekkoon sa responsabilité ci biir projet boobu
Hum, daanaka euh, foofu moom euh, responsable xanaa ki ñu doon jàngal ñu ngi nekkoon tamit ki mu doon jàngal mi ngi daloon ku ñuy wax kër monsieur Kounta xam nga ko moo gaañu foofu la daloon wax dëgg yàlla ku ñuy wax Nogoy Dieye tamit mu ngi woon ci procès bi moom la ñu faloon déedéet astafurlah ñu ngi jëkkoon fal ku ñuy wax Mintu Maam mi dafa gaañu jamono boobu moom la ñu faloon mu mu mu seere woon nekkoon njiit bi njiit bi daal. foofu waaw
ah kon yow nekkoo woon.
commencement bi mintu maam bi moo jëkkoon a nekk njiit bi moo nekkoon jëkkoon a nekk président bi dafa gaañu
léegi après kan moo jël bi ma ñu bi ma bi ñu ñëwee Nogoy Dieye ñu ñu fal ko président ku ñuy wax Nogoy Dieye kon yow amoon poste ah de kay responsable.
man maa nekkoon trésorier bi maa daan denc xaalis bi
lan moo ne woon ban maanaam yan ban impact daal la projet bi am fii
maanaam so ci yow maanaam yi nga xamante ne moom def na ko fi daal waaw wax dëgg yàlla def na fi lu baree baree baree bare ndax Boston bi muy ñëw fii booba temps ñun xamuñu woon lu bari ci àddina daanaka mën naa wax ne dañ daan dudd di nelaw di yeewu di dugg dégg nga waxtaan daal waaye bi Boston duggee fii bari na lu mu def ci ñun ndax mujj na kenn amatul jot te ñàkk jot moo gën am jot Hmm? tostan bi mu ñëwee fii di ñu jàngal ñu yeewu ci loolu mujj gi ñuy dugalante ak génnalante ci biir daara ji di jaay ay saaboog di joxe ay affaire yooyu pour mën cee jariñu dara pour mën cee gañe dara daal loolu yëpp tostan lañ ko jàngal waaw mujj na ku mënul woon a bind sa tur sax dem nga ba mën koo bind ku mënul woon a bind numéro téléphone dem nga ba mën koo bind loolu yëpp njariñ la woon ci ci tostan
est-ce que amul yeneen tànk yoo xamante ne am na yeneen projet yu ko taxaw yu mel ni Tostan fii Hmm.
ah mën na nekk mais man xaw ma ko tostan daal laa xam fii xëy na peut-être am na yeneen procès yu fi ñëwoon te man xaw ma ko parce que xëy na sama génn bariwul woon nga xam nga doomu kilifa moomul lu nekk nga dugg ci ak it tamit di génn génn yooyu loolu mën na nekk mais man procès tostan daal laa fi xam yoo xam ne def nañ fi daal loo xam ne jariñ na dëkk bi waaw def nañ ci xale yi xel ak xalaat bu baax jàngal nañu leen ba ñu am xam-xam ci seen bopp mën koo jariñoo dégg nga def nañu fi it ay njariñ ndaxte am na ay duus yu nekk ci biir kër yi ba ci bi nekk ci jàkka ji ci buntu jàkka ji féete na le tostan moo ñu ko fi may indi nañu fi garab yu baree baree bari may ñu ko ñu def ko ci hôpital bi yi tostan def na ko fi ak xam-xam bi nga xam ne nag def nañ ko ci biir xale yi ñu koy jariñoo jox dimbali nañu fi tamit ay machine ñu jox ko fii ñu ciy ñaw xale yi di ci jàng ñaw am na ci ñoo xam ne tubarkaal macha allah léegi ñooy ñawal seen bopp waaw yooyu ay ndimbal la man nag dañ ma jëloon spécial ma dem di liggéey ak ñoom
balaa ngay dem Tostan yan lan moo nekkoon sa yëngu-yëngu fii balaa may dem tostan xanaa jaay bitig laa yore woon di jaay di jaay jaay yu sew waaw ci loolu daal laa nekkoon ndax bëgguma woon bëgguma toog toogaay bu neexuma daal
amoo yeneen yëngu-yëngu yooyu def bi post Tostan jeexee ba léegi amoo yeneen yëngu-yëngu yoo xamante yaa ngi koy bi def tostan jeexee ba léegi daal parce que yënguwuma ci lu bari daal xanaa politique xëy na may dem di politi- politique bi wax dëgg yàlla foofu maa ngi fay dem di yëngutu ci politique bi tuuti tuuti
kon nag amoo yeneen engagement yoo xamante ne côté diine bi yëpp fii ci biir Ndiassane wala feneen.
ci côté diine Mhm.
ah waaw ndax diine kay lu ci yëngutu lu nekk dinaa dem def ci sama participation ah, ndax fii te Ndiassane tey lu fi xew lu ne dinañ bind lettre indil ma ko ne la sa invitation ci ci turu AFP nag lañ ma koy defal parce que dama yor dama yor euh, parti AFP bi nga xam ne Moustapha Niass moo ko jiite man maa ko fi tawal léegi nag Ndiassane lu fi xew lu ne dañuy bind seen lettre indil ma ko jox ma ko ci baatu AFP lañ koy def nag ah bu ma su ñu ñëwee jox ma ko lu ma am lu mu néew néew ma yëkkati ko dem toog dimbale leen ay conférence ak ay gàmmoo ay affaire yooyu daal
AFP lan mooy sa responsabilité foofu la fii la- AFP man fii laa ko toogal Ndiassane laa ko toogal mooy sama responsable foofu fii nii waaw.
lan la fal fii nii.
waaw man man man daal maa fi jiite AFP fii man Ndiassane politique lan moo la si dugal yow.
politique moom sama bëgg-bëgg la rek euh, dama bëgg Moustapha Niass dama ko bëgg ci sama xol depuis bi mu nekkee ministre étranger masuma politique masuma sànni carte masuma dem sax di sànni carte dañ ma daan wax xanaa doo citoyen ma ne ah kay citoyen laa mais xaw ma daal yàlla mu ma si xiirul woon mais yàlla def partem juddu rek mu neex ma ma dem jënd sama carte ànd ak ñoom boobu am na ñeneen ñu ko fi jiite woon it mais ñuy dem di dem di dem ba ñëpp rocceeku man ma des ci man ma bëggal ko sama bopp rek laxasu ci topp wax dëgg yàlla Moussa Faye bëggal ma boppam bu baax a baax di ma dimbali ci anam bu nekk la
en tant que doomu daara noo gisee léegi politique gu Sénégal nu mu mel nii.
waaw doy na waar moom doy na waar lool politique gu Sénégal doy na waar ndax politique nit mën na ko def te du tax nga gëm a di yàlla. danga ko war a def ndax ñi ñu fi jiitu woon di ay nit yu baax sax dañ daan politique waaye nag seen politique yëpp dañ ko teg ci yoon diine ak ngor ak lislaam léegi nag politique léegi moom bari na ci yoo xam ni jikko yi ñoo yàqu waaw
léegi politique bi nan nga ko mën a defee te yow say njàng soriwul waaw noo mun a defee politique bu mun a wax ak nit ñi nga mun leen a sensibiliser ak yooyu léegi kan moo lay defaral traduction yooyu ak yëpp boo naree wax ak ñoo xamante ne dégguñu lu dul tubaab
loolu du jafe ndax ñun comme dañ jàng ci tostan lu baree bari comme ndax man man dama doon dem tostan di ñu jëloon ma fa ma nekk mobilisation mobilisation sociale di sensibiliser nit ñi ci dem ci ay dëkk yi amul dëkk bu ma demul fii ci Sénégal bariwul ba Guinée dem naa te tostan moo ma fa yóbbu amul fu ma demul fii ci Sénégal presque mun naa wax ne bariwul te li ma fa yóbbu woon mooy di sensibiliser doomu aadama yi jàng googu ma jàng noonu ak jàng gi ma jàng alxuraan ndax mun naa wax ne moom a gën a dimbali ba tax euh, politique bi ma mën cee def lu baree bari
sensibilisation bi nan lay demee dangay wax ñu dëgg wala dangay jëf ñu dëgg wala dama doon waxtaan ñu dégg ndax soo fekkee nit ci aadaam nga ni naa ko ci jële day am loo ko tegal mooy tax mu mu mu mu jo- mu jóge ca tostan jàngal ñu ñu dem bu ñu demee ci ah, dëkk yoo xamante ne bii la ñuy def xëy na tostan bëgg nañu bàyyi ko ñun ñu ñëw waxtaan ak ñoom ci yoon yi nga xamante ne bii mën nañ cee jaar ba bàyyi ko te duñu loru ñun duñu loru ñun duñu loru
comme yan lay nit ñi def te te nit ñi bëgguñu xëy na peut-être aada aada aada bi ñu daan def rek aada bi ñu daan def suñu doom yu jigéen yi xam nga aada bi ñun dañu baaxoo bugguñu di ko ñàkk a tegginal ndax dañ ko daan dañ koy def lakkat yi ñoo koy def Euh, tostan ñëw na fi bëggoon ñu bàyyi ko léegi nag ñu jël ay équipe ay équipe yu bari la ñu jël ñu dugg ci àll bi di waxtaan ak doomu aadama yi ni leen kat newuñu araam na araamul ndax sunna la sunna la ci ci mag ñu jëkk ñi ko daan def comme sunna la nag du ñu ne araam na waaye ginnaaw gis nañu léegi ni euh, suñu ko defee am ci ay loraange te lépp luy lor doomu aadama yàlla bëgg ko kon nañ ko bàyyi moo gën te boo ko deful amoo ci ay daan boo ko defee amoo ci ay daan kon bàyyi ko day daal di gën te yaa ngi ciy loru kon bàyyi ko day daal di gën ndax yàlla bëggul dara luy lor doomu aadama
yow say mébét tey yan lan la
lu baax rek bëgg lu baax rek bëgg naa lu baax bu ma sañoon nit njaasaan moo fiy gën sax laay wax bu ma sañoon àddina bi yépp Sénégal a fiy gën waaye bu ma sañoon ci biir Sénégal yi njaasaan a fiy gën bu ma sañoon njaasaan développé passé fii bu ma sañoon njaasaan mel nu ne te képp ku ñu jàppale ci njaasaan du ma wax ni kenn nit rek nga jàppale ñépp nga jàppale waaw sama mébét daal bëgg naa njaasaan gën a avancé bëgg naa man ci sama bopp ak sama njaboot ah bëgg naa ñu avancé waaw baax a baax yow looy jeexale
li may jeexale mooy sant yàlla bu baax a baax a baax ci seen ñëw fii fekk ma fii ma ñëw waxtaan ak yéen ñëw pour sàkku ci man waxtaan li ma xam ci li nga xam ne sama dund la ci biir tostan ak biir lislaam bi ak fii ci njaasaan kontaan lool ci seen teewaay fii sant yàlla bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant samay ñaari waajur waaye sant alaaji maam bu xalif général de Ndiassane
kon jërëjëf